asalaamaaleykum mbokk yi teela a àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci sawaal muy weeru kori di fukkeelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo juróom-ñetti fan ci weeru mee ci atum ñaari junni ñaar fukk ak ñeent ñaar fukki fan ak juróom-ñeent tey dafa dajeek àllarba ji mujj ci weer kon tey ci àllarba ji rafetul ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci xam-xam bu amul njariñ allahuma inni a'uudu bika min ilmin la yanfa allahumma inni audu bika min ilmin la yanfa xadiisu bis bi def na ci Maaz ibn Anas al-Juhani yàlla na yàlla gërëm ko mu ne yonente bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallama wax na ne képp koo xam ne wan na aw mer te fekk ma amoon kàttanuk mën a fayu ëllëg yow bal xiyaam sunu borom dana ko woo ci kanamu mbindeef yépp tànnuloo ko lu ko soob ci xuurul ayn yi xadis bi Abu Daawud nettali na ko an muaad bne anas aljuhaniyu radiallahu anhu anna rasulallahi salallahu alayhi wa sallam qaal man kadama gaysan wa huwa qaadirun ala an yanfidahu dacaahu allahu azza wa jalla ala ruusi alxalaa'iqi yowma alqiyaama xatta yugayiruhu allahu min alxuri ma shaa rawaahu abu daawud